waaw yow euh, la bal bi daal sa bët bi nu mu demee. waaw euh, ay booru vingt vingt heures vingt cinq. Mhm. ma ñëwoon fii ci kër gi pour pour reer si quoi. Mhm. ñu ñëw après mère bi na ma jëndi mburu mhm. ma dugg ci bitig bi Abdou Abdou ci boppam moo xam ne ma ni am nañu ko yëgal ni euh, malfaiteur yaa ngi ñëw. léegi ma ne ko ma xam nga sentiment tristesse am ma ma xaw ko yërëm quoi. ma ne ko Abdou da ngay ut ay compagnon mu taxaw xam wax ji ni ñuy waxee noonu rek ci la gars yi ñëwee. léegi man j'ai profité naa sax pour daw si daw si naa ba dugg si biir kër gi teg naa mburu bi yooyu yëpp mais xam nga rek mooy may xalaataat Abdou quoi mu mujj génnaat gis naa dañu yor semiñ ma commencé yuuxu saa cey saa cey gars yi jékki-jékki rek xam naa ñu taxaw foofu sama mag bi sax mu yoon fii ñoo taxawandoo fii te jékki moom xam na xam naa gis na ki doon dóor mu jékki-jékki dugg moom mhm. mais man dama tardé dugg xaw xaw naa yéex tuuti xam naa ne noonu noonu ci dama bal bi dalee après bal dafa ma dugg rek dóor la bal bi quoi waaw da laa dafa defe ne woon da ngay ñëw pour attaquer ko waaw ñun ñett la woon xam maa ci am ma chance mu dal ma mhm. mhm. ah, maa ngi tudd Abdoul Dia maa ngi fii ci kër kër bu ñu naan kër euh, Issa. Mhm. Euh, démb daal ci vers vingt dafa am ñett nit ci suñu woon daal ay saay-saay lañu dama doon jaay bu yàgg benn waaye nii moom am ñoo ñëw fii ay bandi lañu gaawal tëj parce que ñu commencé tëj man na ñaari xel ndax dëgg waaw waaw bi xam ne njëkkee ki daal mu njëkk dugg bare ma ne pour lan nen ma ne waa dama génn ma yëkkati sama jaay boo fekkul sa boobu tëjuwul moom. ndax maa ngi def euh, kii maa ngi doon pour def euh, appel pour appel woo euh, woo police. mais élément bu may def composé rek dañuy egg si. boobu bu ma yegsee nag nee ma léegi génn si biir man man du ma génn si man laaj man la ñu man du ma génn. fekk xale bu ñëwoon di jënd si. may nag gaawal génn parce que am na ñu ñëw xam naa ni man man nañu wut ah, balaa ñu lay gaañ gaawal génn waaye yëg naa ni ngi ñëw wax hmm. dëgg nag gaaw man gaawal génn balaa ñii di ñëw xam naa ne bu ñu dañu kooku dem jóg paas kiram bu ñu ñëwee na ko ne jël jaasi ne ko génnal ci bit man du ma génn ma jël jaasi bi sàcc man tam ma jël sama jaasi sàcc mu dóor yàlla defoon sama dóor mais kenn laalu moromam mais man laal naa ko ci loxo laal ko ci loxo laal laal naa ko ci loxo mais la non moom laalu ma <laughs> léegi nag keneen ki nekk moytu moytu yoon kii ne mooy keneen ki rendu lu mu rendu wolof wolof la wax ne ma daan mën naa liggéey man benn yoon ma jël fusil bi nag jublu sama bopp fu ma tiir rek ma sigg fu ma sigg nag bi daal ci mur bi léegi nag keneen ki nag jël loo xam fonkal lañu ñu xàcc kii bi ñu xàcc grillage bi grillage bi dajee ko ñu fekk ma ci biir ñu nekk foofu noonu di di def ay xalta ma jël benn chaise dóor ko keneen ki nag ñu gaaw tëj bunt bi pour mu ma fette ci biir kër gi ñoom ñu dugg ci biir dem bu ci turwaal bi xaj turuwaal bi génn pratiquement gis na dama xaar daa tiit xaw mu lan mais jëlul dara dëgg yàlla jëlul fi dara mais turuwaal bi amoon na xaalis amoon na xaalis moom xaj dama amoon na mais jëlul ñu moom si nag la booy bi dëggee bu ñu tiré bal bi nag booy bi ndax mooy fu mu jëm fi ba dëgg bal bi neen yaay yaay kaay ñu ngi ci biir Abdou Dia ñu ngi euh, kii ñu ngi gaañ Abdou bu may ñëw waa jël sasar beneen beneen bal dóor ko bal bal bi nag dal ci dal dal dal waa ci bët bi la daal ci kaw bët bi la daal waa ci bët bi la daal xale bi xanaa moom mu ngi doon sàmm urgence waaw mu ngi doon defal waaw. ñu hmm. ngi ne daal léegi nag yàlla def waa affaire bi si waat gars yi di ñëw di intervention briques yëpp tëj. maanaam xam ne léegi vingt la mais fu tëj parce comme fu mu toll moom ñëpp ñu tëj taw bi ñu ngi taw moo tëj man dañ. toog ba subu léegi nag léegi daa bëgg ñu def sama plainte bu ko gendarmerie police yi ñëwuñu fi def constat non ñëwuñu wax dëgg yàlla ñëwuñu mais déposé ngeen plainte maa ngi koy def maa ngi maa ngi nii sama sama loxo léegi la fulaat jëm léegi gendarmerie la sala fula jëm waaw mhm. kon euh, attaque yi dafay faral di am fii ci kër Issa dana am ndax daaw meloon ni lu bëree sax bëree bëree bëree bëri mhm. daaw moom chaque jour ñu ngi fii ñu ngi fi mais boobu egsi woon si man nag mhm. mais bi yoon nag daanaka maa ngi nekk troisième bi te bu ñu jógee bu ñu jëlee jógee si man beneen bitig ba dem nañu foofu foofu moom jël nañu xaalisam moom waaw foofu ñu jël ñu xaalisam mais nag yàq nañu grillage bi yëpp yàq nañu tasaare fii yëpp mais heureusement moom gaañu mu wax dëgg yàlla mais jël ñu dara la ñu woon ñett la ñu woon dañu kaalu kenn ku dugg ci biir biir boobu dafa kaalu moom dafa kaalu ba pare kenn ki def def masque waaw masque lañu sol masque ci moment bi dañu bañ. léegi nag dañu leen jaay de waaw dañ leen koy tere. waaw duñu ñuy tere amu ko quoi. amuñu ko xanaa nga yor jaay si wàllu yàgg. Mhm. te am na ñoo xamante ni bu ñu fekkee sa biir dañ lay rey. xam ku dem ba tiire nit moom rey na ko ba pare. Mhm. lu si def nag dañu ñaanoon gouvernement bi ñu jàppale si arme ñu mun yor ñu sécuriser suñu suñu alal loolu tamit wóorul képp borom bitig bu nekk fii Thiès bakk na mu ngi si xottu gerte. bu waxee bu waxul loolu nag dañu ñaanoon dimbal affaire yi te fu wóorul ndax taw bi walla leneen ngay nekk si koñ ngay liggéey daan ba sa dool bëgg li dundal sa njaboot yàlla def ay bënn ñëw di la attaqué di la sonal di la bëgg raj xam nga ñaar ñi ku ñu tiiree ñaar mais bu bu yàlla deful woon jàmm di ñu faat kenn. te ñun tamit am lu dul jaayis ak yàtt. xale bi bal bi da ko boros ci bopp bi. Euh, xale bi fii la ko boros. ci kaw bët bi te bët bi wax dëgg yàlla mu ngi néew ba fii. te loolu tamit wax dëgg yàlla wóorul. te ab dëkkandool bu baax la te dafa ñëwoon di jàppale rek. Mm. xam nga bu mu jinnee ba génn rek dafa dem wax yaayam Abdul de ay bani ñoo koy attaque. moo magam yi daw di ñëw pour atte mais bandi bi mujj ko téere bal bal bi daw fii. ah kon xale bi dafa jënd si woon si bitig bi. waaw dafa jënd si woon demee seen waa kër pour ñu jàppale leen. waaw ko dóor bal bi. lañ ko dóor bal bi si bopp bi yàlla def nag mu génn wax seen waa kër waa seen waa kër ñëw di eh, jàppale Abdou ndax Abdou nag ñëpp xam nañ dafa baax. dafa dafa ji fi ay teraanga ak leneen ak leneen. léegi nag bi ñu ko dooree si bal Abdul moo mujj ànd ak ñoom yóbbuwaat. ba hôpital jël xaalisam defar ko yóbbu leen ba hôpital waaw yóbbu xale bi hôpital waaw léegi.